waaw dëgg la en 2017 yéen journalistes yi dama leen di convoqué suba 10 heures ngeen ñëw ma wal leen kayit yëpp xam ne ñii amuñu lu ñu wax dañ koy wut dañuy wut lu ñu wax mais dëkk bi. bëgg nañ kontaan nañ may naa leen fu concert bu rëy 31 décembre pour que doomu Pikine dootuñu dem di wàll yaan si place de l'Indépendance maa ngi dem ak ñoom ci benn festival kon waral naa leen wutal fu mbër yi amee arène footballeur yi am stade Alassane Djigo mais doomu Pikine Nord war nañ am une infrastructure bu rafet muy théâtre Verdure maa ko tuddee woon théâtre Verdure Fodé Doussouba ma ñëwaat defaraat ko à 6 million jox ko askan bi tey commune bi su fayee salaire amul ay millions yu muy denc parce que acte trois bi doxul maa ngi fay presque vingt et un donc su ma gisee un Pikinois doomu Pikine di dem ay Dubaï di fa gagné ay marché lii weccal la ci moom mu ñëw pour defar lii nee ma dinaa jël sa xaalis sama xaalis defar taatu verdure bi ba mu jekk bu bu jekkee ëllëg bu jekkee na ko bu jekkee moom. ci fukki at ak ñaar fukki at juróom la doon négocier ak man pour ñu ànd di ko gérer ba mu am retour sur investissement comme conseil municipal bi daf ma autorisé en tant que maire ma discuter ak moom parce que un promoteur privé mënu discuter ak 56 conseil municipal te man maa seen maire man la ñu wóolu ma discuter ak ñoom signé ak moom protocole na ko ba quinze ans te 15 ans su ñu defee calcul bi léegi yéen ci seen bopp di ngeen xam ne 15 ans waa ji mbokk mi buñ ko ko waxee nañ ko ne bul ci dugg. parce que du wóor nga ci parce que chaque mois bu bu ñu dépensé diggante cent soixante millions la ñuy wax ne la ñuy defaree affaire mais du ci yem yéen ay nit ngeen xam ngeen business fukki at ak juróom boo ci dépensé ba tabax bay commencé exploité di nga jékki-jékki ñu ne la miir bi daanu na di nga jékki ñu ne la jëndal ay table wala toj na wala lii courant bi yàq na ko jënd il faut que investissement bi continuer donc booy négocier yu mel noonu da ngay estimer benn montant global. bu ci yeggee yéen a ngi toog di ko gérer ndu ensemble nga ne ko day na stop 200 millions la ñu estimé jàpp ne dina am ci 15 ans yi à peu près 40 millions yu muy dépensé supplémentaire te ñuy fekkee di ci teg suñu bët su ci yeggul ñu xam ne yeggu ci mais minimum de base bi 160 millions la. yoon amu fi soo ñëwee fekk sa prédécesseur signé Macky Sall dina nekk 35 ans président de la République du Sénégal non non signé wu fii mille milliards yi mu dem leb ci turu Sénégal club de Paris ngeen fekk ko yéen ñëpp opposition baa ngi fi lu ñu wax. parce que moom la Sénégal yi fal mu dem wuti alal pour defar fii Pikine Nord man la ñu war a fal may liggéey nag pour ñu falaat ma moo tax may leen di bëggal di taal lamp yi di ay LED di fi indi alors donc illégalité amu fi nañ dem conseil municipal bu bu valable ñoom ci biir opposant boobu am nañ ay conseil ay APR opposant am nañ ci sama biir conseil municipal nañ délibération yi am nañ ko nañ nañ dem. ordre du yi am nañ ko convocation yi am nañ ko yéen boo leen ko amul presse ñëw leen sama suba ma génnee délibération bi wan leen où le conseil municipal dit clairement monsieur le maire on te donne mandat carte blanche feu vert nga dem négocier pour ñu réfectionner théâtre verdure bi parce que nii nga ñu wane architecture bi ñu ko def plan bi mais lii macha allah dafay rafet suñu acteur culturel yi dinañ am fu ñu nekk dinañ fu mun def seen promotion culturelle dinañ mën a dundee seen art mais buñ dee xaar bi. mun nañ 160 millions mun nañ toog juróomi at du duñ ko ci def wala doo am promoteur bi nga am du ko defar léegi di toog di xaar kii nag doomu Pikine la di am ay marché Dubaï ne mun na ko def mais da nga koy woo jox ko doo ci dépenser dërëm man def calcul bi su la neexee. loolu jaru ko léegi si liñ bëggoon. dama ko def ci français dama koy def ci wolof mu leer on communique tey boo jëlee 200 millions nga ne 15 ans dafa dafa bëri dafa bëri man ñaanu ma yàlla ma nekk fi 15 ans. mais damay signé li nga xamante ne maire bu ñëw fekk ko ci su amee loola naqari nga yóbbu ko ci yoon su fekkee nag man yàlla def na ma nekk fi 15 ans ba xobi daas ma xam ne waa Pikine noonu ñoo ko bëgg ma ko ne di négocier alors mais en attendant da ngay jàpp ne bu dee da xool ay at par mandat rek doo am travail de long terme te loolu moo tax Afrique avance wul dañu gàtt bët dañu gàtt gis-gis un maire da ngay def travail pour le long terme ñu signé un long terme pour 15 ans pour commune bi pas pour sama jëm man damay dem. suñ ma faliwu sax dinaa dee mais li ñu signé pour commune bila la boo amee vision alors donc vision boobu moo tax waa ji war a indi xaalisam à peu près ma gàttal deux cent boo ko divisé par douze mois par boo ko divisé par quinze ans waa ji normalement ay treize millions lay mooy génn ci xaalis bi treize te treize millions yi du jël yëpp soixante quinze pour cent lay jël mu war ko nekk ay huit cent mille ñun ñu jël ci vingt cinq pour cent huit cent trente mille par weer lay doon. un million cent onze mille par at loolu ñëpp ñoo koy bokk mais huit cent trente moo koy moom ñun ñu moom deux cent soixante dix sept mille wala deux cent quatre vingt mille pour arrondir mais jamono ji est ce que xam nga théâtre vert bi li muy indi mu weesuwul soixante mille par mois te par yenn saa sax du ko am su nawet yooyu sax kenn du tëgg léegi reception yi kenn defatu ko fi parce que yoo yaa ngi fa parce que amul sécurité boo fa dara def réception da ngay jël juróomi mbër soo bëggee def soirée da ngay jël fukki mbër fay leen moo tax nit ñi di ko daw. maire bu mel noonu gis loolu war ko jox xaalis si am ku la ko mën a tabaxal ci offre spontanée muy BUT BUT build operate and transfer Macky Sall di ko def ci autoroute à péage di ko def ci terre bi ay mille milliards di jox waa APR mun nañu taxaw fii naan mu Amadou Diarra mu nekk au pouvoir du utiliser pouvoir bi ko yoon jox pour tabax suñu terre de verdure bi te Macky Sall mi seen au niveau national di utiliser même procédé bi pour tabax ay terres yoo te ne wóor na ko du ko fay du ko fekkee. da nga jàpp ne ñun de moom bëggoon def ci centre tey. ba may indi naa fi 7 milliards ak ay partenaires pour tabax marché zinc bi def ko R plus pikin Pikinois bu ñu fa bëggee jël tali bu mag bi yëpp laa waroon jël cantine dugal leen fa muy 4500 places mille francs ngay joxe dugg ci di ko fay par weer fukki junni ba muy 15 ans ñu xeex ko dem ci président Macky Sall ànd ak seen député bi ne leen ñun Pikine bëgguñu ko te waa APR ñoo dem Macky ne comme yéen waa pikin bëggu ko du fi am woo promoteur bi mu daw léegi promoteur bii signé ak man dañoo bëgg mu daw. bu ko defee bu élection jotee ñu ne Jaraaf def fi dara donc bu ñuy mbaw fii